Euh, ku ci nekk na jël responsabilité effectivement ça commence depuis la famille parce que jeune boo fi gis fii jógewul ci asamaan ne pëtt fii am na ay waajur donc il faut déjà aller voir tey ji am na jeune boo xam ne boo xoolee comportement am rek nga xam ne ay am na ay déséquilibre këram te il faut pas forcément l'accabler am na tey jeune booy dajal ci benn fii muy xeex di saag ak jël paaka nangam nangam waaw wala bañ a dem jàngeek nangam nangam wala nga gis une jeune fille là ah mu dugg ci l'argent facile Euh, topp tonton yeeg nangam nangam euh, demal këram di nga comprendre yu bëri di nga ne ah quelque part ça pourrait être assez difficile pour cette jeune fille là d'échapper à ce comportement wala pour ce garçon là et cetera donc effectivement mais en même temps aussi famille boobu tam ci yenn conditions sociales lañ nekk ak yenn conditions de vie lañ nekk souvent on dit les parents ont démissionné moi je dis ben il faut faire aussi à cette affaire là euh, lan lañ tuddee parents démissionnés Euh, on me dit oui yi amatuñ temps toog seen doom et cetera ma ne en en général ñiy wax loolu c'est les bourgeois à Dakar c'est-à-dire c'est des gens qui ont suffisamment de moyens dégg nga euh, pour euh, pour aller travailler quatre heures de temps quelque part revenir chez eux toog ak seen i doom lekk dem jël benn glace quelque part aux Almadies dellu si seen kër voilà mais le Sénégalais lambda qui travaille le jour au jour qui gagne sa vie le jour au jour nga ne mu toog këram foo toogee du lekk du añ du reer doomam yooyu muy toogal dañuy yuuxu ne ko papa amuñ añ kon kooku mënoo ko accabler naan ko da nga démissionner ci sa famille faut faire attention il faut être humble aussi faut pas être égoïste euh, di xool rek say conditions de vie donc c'est très complexe de dire ça les responsabilités sont partagées les conditions de vie les conditions de vie euh, duñ ko tuddee démission mais déedéet c'est les les conditions de vie comme ni ma la ko waxee tey jii euh, quelqu'un qui qui qui va travailler le jour au jour combien de Sénégalais sont dans l'informel 80 pour cent de l' économie Sénégal c' est dans l' informel donc mën nga wax ne 80 pour cent des actifs du Sénégal ñiy liggéey ci foofu lañ nekk. waaw loolu ça veut dire quoi il faut en tirer une une implication objective mooy kooku day jóge fajar nekk ci mbedd yi walla feneen ah ñu baal terme du mbedd day dem daan dooleem ba guddi gi nga yooyu bourgeois yi ñoo koy wax c'est-à-dire ñi ma la wax ñi nga xam ne ils sont entre la climatisation leur leur véhicule ñooy wax loolu mais euh, ki nga xam ni mi ngi mi mi ngi dem di daan dooleem. génn këram suba xoolal jóge yëmbal wala fu gën a sori sax ñëw euh, di liggéey si fii wala di liggéey ci benn euh, benn femme boo xam ni bu demul fële ñuy defaree jën ya fajar rang ah duñ ko jël pour fay ko benn 3000 francs xaw ma et cetera nga ne ko lu tax toogoo sa kër sa doom parce que yow tu es dans ta climatisation tu es tu es tu es tu as un cabinet tu peux gagner euh, peut-être un million par jour des fois wala par semaine et cetera et cetera tu en contact avec des marchés canadiens et cetera. est-ce que c'est ça le une exception donc c'est une question très complexe donc gaawante di wax ne les parents ont démissionné te même kooku ñuy wax démissionné mi ngi góorgóorlu avec le peu de moyens bu mu am mu ne boo léegi sama doom comme man aw moyen et cetera naa ko yóbbu ci daara bi nekk a côté et cetera et cetera jéem a seet ñu koy nuñ koy nuñ koy yaree foofu pour bañ mu taxawal ci mbedd et cetera est-ce que daara boobu jaar na yoon est-ce que état bi euh, côté éducation xale yooyu am na vraiment un projet solide bu bu inclure tous les enfants avec toutes les offres éducatives et cetera ça pose encore la question des daara et donc euh, Astou Dione soo soo soo bëggee dégg dëgg daal xam nga lan la c'est une responsabilité partagée ku nekk war nga interroger waat sa bopp les parents effectivement def seen autocritique est-ce qu'ils donnent suffisamment de temps li leen dese ci temps bokk pour ak seeni doom est-ce que l'État a vraiment un projet d'appui à l'éducation euh, bu sérieux est-ce que euh, au niveau des opportunités pour les jeunes encadrement bi ci war Euh, jaar na yoon donc yooyu yëpp dëgg la bu ci nekk dëgg la bu ñu ko opposé bu ñu ne non euh, parents yi ñoo sàggan ce serait tellement facile bu ñu ne tamit non euh, Macky Sall moo moo moo mooy fontoo nit ñi <laughs> loolu tamit ce serait tellement facile souvent ñu joxoñ sax baaraamu ma ay groupes de pression euh, de la présence de de de lobby et derrière euh, yenn yu ci mel yu ci mel ni ay industrie musicale wala yenn industrie yoo xamante ne cinématographique gis nañ li xew ci série yi et le plus souvent dinañ ni euh, certes bon actrice bi moom moo nekk en jeu scénariste bi mais derrière tout ça dañuy mm. wax ay waxu financement yoo xamante ni souvent ce sont des groupes de pression ñoom ñoo koy def est-ce que loolu yéen yow mosoon nga mener genre combat yu mel noonu am nga ci itam benn expérience. Mhm. est-ce que mën na confirmer li nga xam ni moom moo xew tey. Euh, bien sûr bu bu yàggul am na benn comédien bu dellu ci boromam yàlla na ko yàlla yërëm. fàtte naa tour bi xaw ma lan Fall bi Fall. voilà mais kooku bu muy joué théâtre foog naa yéen xale ngeen est-ce que sax juddoon ngeen. Dembi Fall yéen a ngi fàttaliku ci moom voilà. <laughs> Euh, ku mënoon joué théâtre maanaam maanaam théâtre yi ma am nostalgie quoi yooyu la ñu théâtre bu sain et qui pose les problèmes moo tax du ma mës a d'accord ak ñiy pervertir jeunes yi ak des productions moralement très dangereuses te soo leen waxee ñu noonu réalité dëkk bi la ñuy wane. ay cuune lañu rek pour man dañu amul compétence rek boo amee compétence artistique mën nga dimbali sa njaboot ah ci ci ci ay production yoo xam ne day participer et la dimension d' éducation loolu bu jógee ci benn production même yéen médias yi dañ leen koy jàngal non vous devez éduquer en même temps et cetera Euh, lu la neex nga wax pour am xaalis ak nombre de vues suñu la waxee nga ne non réalité dëkk bi réalité dëkk bi mais euh, am na ñoo xam dañuy xaru est-ce di nga def sa benn production di jàngal xale yi nit di pendre boppam pour dee et cetera donc il faut faire attention à ça donc démb boobu je reviens à dafa wax ne am na benn benn benn benn rôle bu ñu ko bëggoon joué proposé woon ci temps yooyu proposé woon ko xaw ma 10 millions xaw temps yooyu 10 donc mu wax ne mu bañ ñu ne ko lu tax mu ne non sama diine ak sama ngor mu ne am loo xam du ma ko nangu bu yàggul si je crois am na benn daam bu ma dégg ci actrice moom tam muy wax ne am na rôle boo xam ne ko bañ. tout à ba ma dégg benn benn femme communicatrice traditionnelle moom tam muy critiquer beneen femme naan ko maa la yar xam naa say et cetera et cetera lii jaru ko. Mhm. et cetera c' est bien c' est bien euh, ku nekk am na foo bokk bu ñoo ñu ak yow rek euh, du ñàkk mu am la mu delloo si sa xel ci ci yenn yi maintenant bien sûr derrière ça. derrière ça bien sûr il y a il y a, des groupes euh, organisés yoo xam ni loolu seen agent la muy LGBT muy pornographie et cetera c'est des groupes très puissants mais man fàttewu ma dama ko fàtte xaw ma mais boo tàppee ci Google di nga ko gis nanga tàppee nga xool l'argent xaw ma nu ñu koy waxatee encore l'argent qui vient de la pornographie de la drogue et cetera moo ëpp budget ay état yu bëri moo ëpp budget ay état yu bëri donc euh, ce qui fait que euh, koo xam ni sa éducation dëgërul. Euh, te it euh, wuñ la te it euh, sa diine woyof na nga jiital àdduna nekk xale ñooñu mën nañ la récupérer facilement. dugal la ci leen neex. est-ce que loolu donc état mën na ko ko xeex. état bi am na lu mu ci mën a xeex. mooy lan mooy état bi bokk na ci rôle am mooy de préserver les valeurs du pays man souvent damay wax ni sunu sunu état président bi. il n'est pas là juste pour des questions de développement matériel il est aussi là pour le développement humain et développement humain valeur daf ci dugg mënoo ko ciy génne. que réellement teg nañ ay. te am na ay loi te am na ay loi yoo xam ni sax da koy protéger tey ji par exemple même boo jëlee suñu constitution am na ay loi yoo xam ni dafay interdire ay pornographie mhm. ay relations contre nature et moo lay wan ni de tout temps dans les constitutions partout dans le monde en compte des questions de valeur de protection de et cetera donc. état bi am na fa rôle maintenant état bi nag su bàyyee ay lobby ñëw dugg ci réew mi ah di exposer xale yi à l'argent facile par la pornographie par et cetera et cetera boobu citoyens yi war nañ jóg duut ko baaraam ne ko jouer ton rôle de protection euh, des valeurs des des des populations. parce que moom laay wax souvent ma ne président boobu ngay gis wala ministre bi moom may dem Touba wala Tivaouane sëñ bi ñaanal ma euh, réew mi ma yore ko yor bu rafet nangam ak nangam ba pare bu ñëwee Dakar bëgg bëgg ba bëgg a yi ñu ñëw fii di yàq réew mi. ma wax ko sama benn euh, benn doyen imam aussi ma ne ko yéenay ñaanal gars yi toul le temps te du ngeen te du ngeen xam lu ngeen leen ñaanal mu ne ma lu tax nga wax ko nit bu la nee ñaanal ma da nga koy ñaanal ma ne ko da ngeen leen war ñaanal ñu yore réew mi ci loo xam ni du ñu faagaagal l'islam te ñoom dañuy ñëw ngeen ñaanal leen ba pare bu ñëwee Dakar fii def fi ay loi wala ubbil bunt ñoo xam ne li ñuy def ci réew mi fii quelques années du baax donc état bi am na rôle boobu de protection de la famille en général moo tax ministère de la famille am même bu ñu ci lonkee genre beeg yooyu am na yeneen bunt yu ñu ubbi foofu loolu beneen beneen waxtaan la mais euh, le rôle de l'État mais aussi comme ni ma ko waxee sànq tamit léegi le rôle des parents et de toute la société sénégalaise cest à ku nekk à ton niveau jouer sa sa sa sa sa rôle ñun imam yi dans notre discours dans ce qu'on dit aux gens à la mosquée dans les baptêmes et cetera euh, le député il doit contrôler il doit poser des questions au ministre de l'éducation au ministre du commerce xam nga ban ministre moom en charge tout ce qui est artistique et cetera en lui disant mais attends production yi nii est-ce que lii yaa ngi xam li xew ci réew mi est-ce que lii yëpp war na jàll et cetera et cetera CNRA on doit poser des questions député nañ jouer seen rôle la justice doit jouer son rôle et